alaikum. yéen a ngi si géejawaay info point dans l'émission émission artiste ak Mbaye Prési Tay ñu ngi fi géejawaay au niveau de Las euh, Palmas donc c'est si ben artiste suñu ben siste bo xamna ñu koy wax tout ça Mom la bëgg a waxtaanal légui. Légui légui sur géejawaay info point com Salam alaikum, comme nous l'avons dit, nous ñu Las Palmas C'est un artiste qui tout ça donc euh, auteur de clin d'œil de préparer un événement nous info ak Mbaye donc tout ça c'est sama première question moi. kan moi tout ça avant tout donc damay nuyu ñi nga 17 ans, donc di info et que ça fait plaisir ça fait plaisir ma recevoir sama mon donc tout ça un artiste qui a xamante mi HLM Guédiawaye HLM Las Palmas donc euh, di de hip hop depuis bas âge donc mon premier projet comme nous ko c'était en 2014 Clin d'œil meilleur mixtape de l'année Top Awards donc mon deuxième projet en 2016 nek EP femme musique de EP Pour ma internet bi mon deuxième projet en def 2017 de New Life avec le label YBE Young Believe Entertainment donc bu nga xamante ñoo depuis fin 2016 ñu basé à Washington DC donc euh, en bref mon projet phare yoy non def à part mon mon premier voyage c'était en 2013 représente le Sénégal One Beat International ñu def tournée 12 euh, pays en moins de, de, de, deux mois. Donc, euh, et en 2015 aussi, je suis retourné avec le Hip Hop Academy aux États-Unis, avec le Next Level. Donc, maintenant, c'est mon cursus bref. Il y ni faar euh, na important aussi. ok donc tout ça on sait que ne. def nga ay projets yu bëri. si si si si tu as parlé tantôt de clin d'œil affaire donc projet yooyu yëpp. on a vu que aussi teg nga ay affaires yu bëri. Mm-hmm. Tech label rock team mhm. tech femme musique affaire comment c'est venu projet yooyu ak euh, lan mo la gëna a may fit pour nga tech projet yooyu en tant que femme bi nga xamné ya ci culture urbaine quoi. donc euh, voilà étant étant un artiste dans la culture urbaine donc tu arrives à un moment donné donc tu euh, mbedd mi ak expérience yi nga jot a am daf lay jangal nga entrepreneur tu vois ce que je veux dire et que j'ai eu la chance par exemple à l'âge de 21 ans dem voyage en 2013 wër aduna bi donc dem aux États-Unis ñi nga xamante ni tey bu ñuy référé aussi musique wala ci industrie ci aduna bi ci ñom la xol donc ñoñu par exemple euh, j'ai eu à faire des formations yu bari yo xamné ça m'a aidé à ce que ma am fit pour créer ay projet euh, tek ay ay affaire té so tegul ay affaire wala créer ay projet je n'avance pas et que en tant qu'entrepreneur il fallait ces choses là donc bu ma ñibbisee en 2013 je me suis dit que ma nek artiste euh, may may ma ne damay dama bëgg sama art développé fe egg egg fenn fi si aduna bi donc il faut nga am espace pour exprimer woo loolu noonu donc ça m'est venu comme ça l'idée en tête de créer un studio bu tudd Rock Team Music donc j'en ai parlé à un ami de cœur boo xam ne pas loin la dëkk Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye maa ngi koy shout out au passage donc moom aussi mu amoon envie mu nekk benn amoureux de la musique boo xam ne daan jënd ay matériel rek di collectionner tu que je et donc on a fusionné ligué ensemble et à un moment donné aussi j'ai voulu faire ce je football. donc l'ol aussi après mon jour Fam Music et que voilà ainsi de suite ainsi de suite l'essentiel c'était de créer des entreprises et créer des entreprises jusqu'à en trouver mon mon ni mon ok par rapport au euh, projet yooyu nga teg ak entrepreneuriat boobu nga doon véhiculé, euh, quelle a été les difficultés en tant que jigéen parce que xam nañ ne mm-hmm. jigéen dafa metti surtout aussi si culture urbaine bi nga dugg quoi lan moo doon difficulté yi quoi donc les difficultés étaient nombreuses par exemple euh, euh, Buma ma buma ma première, première première entreprise donc lolo ça m'a appris par exemple beaucoup de choses ndaxte amoon na ay ay haut et bas mais comme on a l'habitude de le dire échec mënul am tu apprends des leçons tu en tires des leçons et lolo moi lay servir ba suba bo tegee benen mu nga ni kat luma luma yakalon ma duma yakalat fi tu vois ce que je veux dire donc expérience yi ak difficulté yi bari na kep ku nek entrepreneur en tant que leader yow di nga xam man lay wax donc teg entreprise c'est pas du tout facile par exemple tu fais travailler des gens yu nga xamante yow amago sax ressources pour fay len tu vois ce que je veux dire donc amna ay yenen ak yenen yenen yoy confronté yu bari yo xamanteni il faut que nga nga entrepreneur pour meuna comprendre lolo donc man j'ai l'habitude de dire que par exemple ki gagne ki gën a ki gën a am am courage ak euh, ak force ah ak ak ak ak mën a mën a dund si àdduna bi il faut que nga nekk entrepreneur pour mën a gérer loolu noonu lépp donc voilà loolu damay damay shout out ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi entreprendre parce que c'est pas du tout facile. ok c'est pas du tout facile wax nga ko tout ça. donc évolution am na tout ça di participer ci ci projet yu bëri. di def ay featuring di def ay kii. Mhm. ak dem nañ ba benn instant ñu gis ne tout ça signé na ci la benn label bu mag. Mhm. label de renommée internationale. Mhm. comment c'est venu signature boobu ak tamit euh, gars lan moo tax ñu signé ak yow lan lañ gis ci tout ça quoi ak yow tamit lan nga gis ci ñoom ba ba ba ba fas jël sa carrière jébbal leen ko quoi. donc euh, voilà c'est c'est pas du tout diabolique xam nga artiste boo gis buy buy def musique euh, envie am moi que mu signé si label yu gëna parce que dafa am musique fort fo xamné bo fa tollé il te faut un label pour mu yóbbu ci yenen étape bu féké da nga bëgg a ak aduna bi tu vois ce que je veux dire donc j'en avais besoin d'artiste étant artiste indépendante donc luma don doon defal sama bop suma ma par exemple suba kuma proposer plus et que tay so togué un an par exemple ngay liggé ben affaire en un an nga nga bëgg a liggéey ñaari affaire donc le avec le label c'est beaucoup plus rapide mën na la ko defaral 4 en 1 an tu vois ce que je veux dire donc je li maa ngi gis seen internet bi et que ñuy waxtaan ma leen di solliciter si leen liggéey si lañ ma proposer ne pourquoi pas bosser ensemble donc c'est comme ça que ça s'est venu ñu toog waxtaan def essayage de longue date soo signer un contrat tu vois donc euh, mooy lu mu la wax tantôt que ni su fekkee ni dama nar a nekk euh, signé ci label ma am même niveau bi ma amoon wala même potentiel que bu ma nekkee indépendante c'était pas la peine de signer un label mais boo signé ci label daf lay mën a yóbbu ci beneen level donc loolu moo waral ay projets yu bëri yoo xam on a eu à le faire si sama dernier mixtape en 2017 ay collaboration internationaux ay artistes yu jóge Togo Congo Nigeria, États-Unis partout donc ñu def benn mixtape boo xam ne ku ci nekk defal lañ ko featuring ñenn ñi def vidéo yo xam dañuy tourner seen dëkk man ma tourner sama dëkk ñu fusionné ko tu vois et fin décembre 2017 tamit ñu andi leen Sénégal wër ak ñom dem ak ñoom Cher, Thiès Saint-Louis ñëw teyé ko Dakar fii nii Guédiawaye si marché jeudi donc c'est quelque chose de grand état ben artiste tu vois en général lolu structure yi fi ñoo def wa ñom ñoy jëlé artiste fayal leen billet ñëw dëkkal leen tourner lo leen ci si Sénégal bi et puis la plupart Dakar lañ ko yemale ñun on a eu à les faire sortir dans la sous-région donc c'est quelque chose de grand ok on a vu évolution bobu amna na ñun mhm. nit ñi ñu ngi koy suivre on a vu que def nga featuring yu mag affaire yooyu mhm. mais par rapport ak toal beeg affaire yooyu mhm. man bu mu dee suivre ñun buñ ñu dee suivre on voit que da ngay koo xam ne tu tiens beaucoup à l'image quoi loolu nu mu demee noonu man loolu remarqué naa ko <laughs> donc mooy mooy lu ñuy wax xam nga anglais yi dañ lay wax dañ lay euh, si jamono buñ toll euh, people they buy you before to buy your your production cest nit ñi dañ lay jënd balaa ñu jënd yow sa production tu waa ce que je veux donc loolu moo tax si moment monde bu ñu toll il faut que ñu defar image bi même image bi dafay dafay jaay xam nga par exemple soo ñëwee si réalité sénégalais nit du la jënd wala mu dem seetaani la te xamu la ñoom ñun ku ñu xam rek la ñuy dem seetaani wala ñu jënd tey man su may dem di seetaan benn programme dama naan ko mbay moo sos programme bi wala mbay moom invité à ce que mu ñëw mais amuñu culture romb ben affiche rek voilà samedi bi dina dem dem découvrir amuñu culture te loolu culture bi li ko li ko li tënk yëpp moo bëri donc problème mu xaalis amna na si tu vois ce que je veux dire alors que fële ñëlee dañu am culture bi même bo boo leen bu la xamul neexoo leen sax dañuy bëgg am envie de découvrir tu vois ce que je veux dire et que monde Sénégal aujourd'hui musique bi fu mu toll il faut que nga cultiver image bobu noonu pour que à ce que nit ki même su jëndagul sa production sax mu xool ko de ah kii de neex na ma voilà exactement. ok yeah. donc euh, je pense que loolu message boo xam ne tout ça mu ngi koy jox à tous les artistes. Euh, ñu ñu ñu gën a sàmmaat seen image pour mën a frapper nit ñi. Hmm. donc tout ça dernière kii bi ñuy wax rubrique bi ñuy wax mooy yaa ngi préparé hmm. benn benn benn événement. Hmm. donc on voit partout sur le net euh, ay affiches tout ça à Sorano tout ça à Sorano donc wax ñu ci événement lan donc Sorano je me suis dit que euh, chaque jour nous bëgg at bu nekk comme lu ou defoon wala ñu plus que l'une des donc comme que l'année 2017 a été vraiment agréable avec des collaborations et des surprises xam nga ba am ci disque platine bien une collaboration avec ma def artiste Washington DC des poulains au Poulain Pouchetti donc cette année, on a voulu encore défendre en ampleur. Tu vois ce que je veux dire? que depuis 30 ans d'existence hip-hop au Sénégal, Jigen Moussoul Djel Mak, donc, c'est que tout le monde fêtait euh, euh, le hip-hop, la culture urbaine en général, fêtait les 30 ans d'existence hip-hop. Donc, moi, je me suis dit qu'en tant que femme, il fallait avoir des choses qui marquer années année, que Jigen Momoko def tu vois parce que euh, comme que góor yi dañuy dem Grand Théâtre diko teug muy fess di dem Sorano diko teug muy fess dem fep diko teug muy fess je me suis dit du côté féminin il fallait que mu am lolu non. moi xamna ni bok nga si ñi ma xam sama début donc man ñi xam sama début depuis ma commencé ba légui j'ai voulu toujours dama am fukk ak envie ak ambition toujours que ni ñuy déggee tey Fou di dégg Simon di dégg ku nekk daara ji si aduna bi dama bëgg mu am ben représentant bu dans la culture urbaine mu non. noonu des ñu tuddee diwkat ne ah diw donc loolu pour moi, am il faut des challenges il faut ngay def ñoom tamit à ah, euh, niveau sax lu def wala lu def donc je me suis dit que Sorano c'est un bon choix date au 30 décembre nekk challenge parce que du ñëpp être le 30 décembre tu vois 30 décembre c'est une très grande date la plupart ñu gëna a mag rek ñokoy teug donc je me suis dit que damay wo sama mbokk jigéen yi la famille hip hop góor pour que ñu ñëw support té bu 30 décembre événement bu réussiré c'est une grand c'est un grand pas pour le rap féminin ndaxte tey euh, damay dina encourager génération benen ak ñenen ñu mën def lolu wala lu weesu lolu voilà donc ci bir spectacle bobu lan lañ fa mën xaar quoi est-ce que day am tout ça rek que koy joué parce que wala il y aura ay collaboration ay featuring ay yeneen yeneen. non yo y aura plein de choses il hein. y aura plein de choses dina am ay invités de surprise yu bëri ay invités de taille yu bëri et que voilà si hip hop bi j'ai eu à rendre visite tout le monde pour cette leen parce que xam nga euh, moment boobu lu ma si gën neex c'est un moment de partage ak ñu nga xamante par exemple il était là depuis le début di support di contribuer di si jàpp di la wax baxna di la wax góorgóorlu donc man euh, surtout ñooñu lay dem ma jàpp sen loxo man len comme que yéen mo ma gunge ba fi ñu am tay lu reuy lu melni il faut que ñun ñu tok ñu partager ko donc c'est c'est moi je pense que c'est un moment de retrouvailles et que dina am ay plein de surprises té voilà xam nga. moment de fête la exactement. non Guédiawaye info est invité donc maa ngi kontaan sax si si lini nii pour man étant doomu Guédiawaye il faut que ñuy ñuy am lo xamanteni ñun ñoo représenter xam nga tay man doomu géejuwaay laa su ma génnee damay représenté géejuwaay damay représenté je d' je représente le Sénégal et ensuite l'afrique tu vois ce que je veux donc man damay kontaan chaque jour suma gissé lo xamanteni doomu géejawaay moo ko initié moo ko et surtout mu tuddee ko géejawaay c' beaucoup plus frappant quoi voilà donc j'invite tout le monde à à venir supporter voilà exactement loolu moo am parce que la plupart y a quand banlieue bi tu vois bu ñé nee banlieue rek lu ñuy xalaat alors que tay so démé ci instance yi gëna mag ci aduna ci Sénégal gi euh ñi dëkk ba doomu banlieue yi ñom ñoo fa boo demee université nga dem lay euh, école yi gëna mag ñun ñoo fa nekk ñoo ko tu vois ce que je veux donc c'est toujours un plaisir de voir ku dëkk Guédiawaye di def ay affaire yu yu spectaculaire ok merci tout ça donc yeah. l'émission tire à sa fin donc yeah. sa last word mooy lan ak looy terminer quoi ak looy terminer ak euh, donc euh, donc lu may terminer que j'invite euh, sama mbokk jigéen yi sama xarit yu góor yi ndaxte jigéen bu réussir rek am na góor bu mag bu nekk ci ginnaawam góor bu mag bu réussir am na bu mag bu nekk ci ginnaawam donc damay inviter tout le monde à ce que ñu ñëw et surtout à Géejawaay ndaxte ñoom ñoo mën a euh, rendre programme bi mu agréable ñoom ñoo ko rendre mu am ampleur bu rëy donc j'invite tout le monde à hein, ñu ñëw c'est un moment juste de partage et voilà la fête continue. merci frère merci tout ça donc ñu doon ñu doon remercier bu baax tout ça ñu ngi won fi HLM Las xam nga seeti woon seet si woon benn sister sister tout ça bi nga xamné elle fait beaucoup de choses euh, si si si mouvement hip hop bi ak si culture urbaine bi donc mu leen jox rendez-vous le 30 décembre à Sorano donc ñu leen jox dig daje ba benen yoon Mbaye Prési Guédiawaye info restez connecté en xolé artiste